daal di liggéey ngir jàmm am ci réewum Sénégal ndax nag Sénégal dafa war a continuer di nekk état de droit yéen a kaay gi de la sa Mariam Badiane bu benn bokk yaakaar yekk na musiba ak mbelengaan Aminata Tall ndax nag Mariam Badiane nee na Aminata dafa war a xam lees waxul dafa war a xam luñ ko waxula jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk APR ñoom nag nee na ñu Aminata mii dafay jéem a chantage te nii nga xam ne moom lay doxalee maanaam mbir la moo xam ne yàgg nañ ko gis waaye a génn sa diwaanu ko loole nag ak njabootam ñoom mënuñu ñu ko dóor mu daal na kii Mari Sagna ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko tegaloo loon loxo ca diwaanu Ziguinchor ñoom ñëpp ni ki démb mandat nañ leen dépôt maanaam yóbbu nañ leen ci kasu bi